ndaxar bu jéggi dayoo lañu ko mën a woowee ca quartier bu Guédé bokk ci diwaanu Touba. benn xale bu góor moom la ñu gis mu faatu tey ci àllarba ji sapeur pompier ñoo daal di ñëw ca lieu ba xew-xew ba amee jamono ji nag police ak élément service d'hygiène ñoom la ñu fay xaarandi drame bi nag daldi di nay jur réaction yu bëri rawatina contexte bi ñu nekk di Covid 19 ña ko fekk woon rek lañ xamle moo di waajoo jile ci koñ bi la dëkkoon di Guédé. Lamine Fall laa li fi am daal mooy dama xëyoon doon dem benn rob bi ma demee ba ci yoon wi ñu woo ma ni ma sa doom ji doon na ñëw ci rob bi ngay dem far daanu si yoon wi. bi mu daanoo si yoon wi tamit yàlla suñu borom dogal ci li mu ci dogal. waaw feebar yi maanaam am daal ci ci